alla aaduma live bi fii lay amee kan leen ko léegi léegi léegi nii ko ñëpp jot ngeen abonné fii lay amee compte bi. xool ngeen beneen L200 bi ni muy daw. xool l bi gis voilà gis nga dawal ba xamal ni bii borom oto bi dawal moo indi problème bii. dawal bu xamante bii borom oto bi dawal moo indi problème bii dama génn génn dem balaa balaa balaa fee xam génn génn ba fële génn ba fële dem génn ji nii dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii fii moo indi accident bii kii moo indi accident bii xamante dawal bu xamante doon dawal nii noonu salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi vraiment parler Sénégal war na ñoo xam ñan la ñu jox permis parce que tamit yor sa xaalis jënd permis rek dafa yomb yow doo xamoo code de la route xamoo dara jaar ci système ñu jaay la permis nga commencé dawal mais lii du yoon quoi lii vraiment du yoon mooy waral accident yeeg yëpp beneen bi ci tegu mooy ñu ngi koy ñaan autorité yi président Diomaye Ousmane Sonko képp kuy autorité ñu jéem a am système protection des témoins maanaam bu nit rayee nit man Adama damay am fitu taxaw su ma gisee ni mu demee ne diwoo ko rey nii la ko lii la sol lii la sol ndax yéen a may protéger système protection des témoins damay nekk en sécure du ma am dara lu may tiit pour nettal li mu demee ni ko Europe amee Amérique amee ko noonu ak yeneen dëkk yi Asie ak yëpp amee ko noonu noonu la war a demee ñi ngi koy ñaan képp koo xamante si nii en ah, autorité nga système protection ah, en euh, euh, système protection des témoins comme que mënuñu am peine de mort peine de mort comme que mënuñu ko def xanaa système de protection des témoins mënat ko def ku rey nit bu la gisee kalaame la ndax Nabou Leye instant bi nii li ko yàggal nii dañu ko menacé ne ko boo waxee dañuy rey sa yaay wala sa papa wala sa doom jigéen ji wala moom Nabou lay reyul de déedéet reyul Abdou Aziz Dabala mais am na lu mu xam lu mu nanguwut a wax moo yàggal affaire yi mën nañ koo menacé menacé yu métti mais il faut mu am système protection des témoins su ko defee témoins yi mën a nekk en sécurité wasalaam